ndox buy ball ci suuf si tax na askanu gént di ak kàcc fii ci cees di jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllum dundin ak ci nekkin ndax ndox bi sonal na leen loolu ba sa day génn ci seen biir kër yi te loolu sa mën na leen indil ay musiba foofu nag kenn sañu faa dox ba yenn waxtu yi ndax amul benn lumière waaye tamit hygiène jafe na fa loolu ñu taaxiru seen kàddu. Je me présente euh, Momar Gueye habitant Nguinth depuis 2004 ans. la ñibbisi waay lors des événements de bi indépendance 44 44 bi jub si comme tout Thiès waa waaw ah, sama ambition sama vision c'était de venir habiter Thiès et vivre 44 44 bi comme euh, tout le monde à Thiès. Mm-hmm. bien on a toujours vécu avec parce que ma si j'ai bonne mémoire euh, depuis de, depuis 50 60 ans, je peux dire que tout enfant, on nous disait éventuellement que Nabou Thiès, bi, bus bu tubeko, Thiès est inondé. Ça, on l'a toujours du ce qui veut dire que donc ça a toujours existé. Bon, que Nabi, bi a toujours été absorbé par la SONES. C'est la SONES qu'utilisait la nappe. En son temps, on, en fait, c'est l'information que j'ai eue. ni Soxna moo ko daan al di euh, di ko distribué au niveau Thiès à un moment donné donc vers 2004 bi ñu demee ba rendre compte que l'eau n'est plus potable que l'eau n'est plus potable que la ñu tëj mooy soo gisee installation yi nekk au niveau de horticole ah donc que l'eau n'était plus potable bon la ñu fermer les robinets bàyyi. bon nab bi di continuer donc léegi comme dafa coïncider woon justement avec l'arrivée su moment yooyu avec euh, la sécheresse c'était parti mais en 2006 bi di kii bi saison des pluies bi ubbiwaatee donc la nappe euh, rechargé wu donc di di ko déverser bon malheureusement bon on n'a pas pris les dispositions qu'il fallait peut-être que pour euh, accompagner woon écoulement napp bi moom moo soo gisee moo indi environnement bi yëpp bon nous avons vécu avec c'était un peu difficile de mais en fait on niveau on était obligé de combattre parce que vraiment moo doon sunu comme fi leen dëkk ba pare on ne pouvait pas faire autrement que que que de lutter avec. Ndoumbé Ndoumbé Seck fii Ngent. Ngent ci ndox mi. <laughs> asalaamaaleykum. Ah, waaleykum gis nañu situation bi ngeen di dundee. ñun bu ñu ñëwee fii gis nañu kii dafa jug garab yi dafa jug. Mm-hmm. tamit te yéen ndox bi dafa mel dafay génn si suuf. Mm-hmm. ñu leen di laaj ndax ngeen di dundee ah métti rek ndax fii moom day ball wax dëgg yàlla day ball suñuy néegee yëppay ball buy taw te fii en plus wóorul léegi ay barak lu nekk nga fi gis fi na ne nii boo génnee nii ci ginnaaw commencé naa am ay jën xam nga ne fu jën am lu ne mën na faa am wóorul fi moom wax dëgg yàlla metti la def ni nga gis ni nga gis ne lu ne lañ ciy sànn lu ne lu ne foo tëddee sama parentère bi gis nga nii day xeeñ xunn bu nab yéegee nii xam nga xet gi day jóg mm-hmm. guddi nit ñi dañuy ngacc seen poos yi bàyyi bi ñu tëdd ñëw sotti ko fii guddi gi boo tëddee doon nooyi ah da ngay gis benn taximan ñu ne ba fii sànni xaram bari kay ñoom ñu ngi génn mu naaj bu tàngee nii tuuti ay 2 heures dañuy génn di doxantu fii bari dañ fiy génn de te wuuru xale dañ fi ne di fo ak yooyu léegi boo gisee ay bar di génn ba mu yàgg nga gis ay jën génn bu ëllëgee leneen mun na fee génn te koñ bi ay xale fi ne te wuurut heure bi day wéet ci ginnaaw fii boo fi jaaree jën yaa ngi foofu fan yi yëpp xale yaa ngi fay dem di xooli te loolu wóoru fa jën génn lu ne mën na faa génn jaset mën na faa génn lu ne mën na faa jën wóorutul guddi gi bu guddi jotee gis nañu fi leerul noonu léegi guddi gi bu jotee naka ngeen dund ak xale yi moom guddi fii benn xale du génn fii moom guddi benn xale après kenn dootu dafa dem boo xam ne sax dañu dañ koo miin parce que fii nawet ak noor yëpp biir kër yi ndox mi day génn ci biir kër yi yéen a ko gisal seen bopp ndox mi mu ngi nii ci biir kër yi mënul gënir foofu si suuf si lay génne léegi fii moom coono bi moom nawet noor bi sax moo xawaatane nawet bi nawet bi moom bu xasee ñëw moom kenn amatul kii amatul foo nooyee luy yeewee fii ci ngent ñu ngi ñaan ñu dimbali leen defaral leen pont bi ndax bu ko defee napp bi mën a wàññeeku ñu ngi ñaan yàlla seen jafe-jafe daal di saafara naam maire bi sax nee na dina taxawal pont bi waaye ba léegi gisaguñu dara